asalaamaaleykum am chers fidèles internautes maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar ci am mbégte ah, jënoowaat ak yéen fii ci Equivox TV la chain leader mais aussi c'est la chaîne qui informe en temps réel tey nag suñu amaat mbégte euh, seet si koo xamante ni kenn dootu ko présenté euh, Sénégal muy un grand artiste international mu nekk koo xamante ni maanaam euh, bay na waaram ci li nga xamante ni rek moom mooy aaram ba ñu ràññee ko fépp à travers le monde tey nag euh, Lamine Ndiaye moom laa seet si fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni rek moom mooy actualité réew mi Lamine Ndiaye magi Pastef dañ koy daal di nuyu rek ziar ko bàyyi ko mu nuyoog ñuy seetaan à travers Equivox maa ngi nuyu bu baax tonton di la bàyyi rek nga nuyoog ñuy seetaan. ma di la fay Bintu euh, di waaye jiital ci nuyu bi sama sëriñ di sëriñu ñëpp ñi nga xam ñu ñoo bokk aussi la euh, mu représenté sëñ Touba di sëñ mu Mountakha Mbacké euh, bu euh, donc ma jiital ko ci nuyoo bi waaye profité wàll ci këru diine yëpp ndax am naa fa ay soppe am naa fa ay xamee am na fa tamit ñoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla lii may liggéey yàgg koo liggéey fii ci senegal dañ ci am considération léeg sax dañ may woo mu nuyoon nuyoonteeg ñoom waxtaan ak ñoom teg ñoom ma di leen di gërëm di leen sant ñoom ñëpp gannaaw ñoom kilifa aada yi tamit waaye bool ci kilifa réew mi wala kilifay réew mi donc euh, nuyoo boobu daal laa bugg rek jébbal askan wii di ñu seetaan di leen wax nii na woon fa woon donc duñ ci wàññi lenn boo ma laajee rek ma wax la <laughs> non man nag euh, ñu bari loolu lañu yaakaar parce que euh, comme pro Sonko la dañu yaakaar ni dama bokk ci mag yu Pastef te wallahi billahi taalahi bokkuma ci benn kuréel bu Pastef li tax ñu féetale ma Sonko wax naa ko fu ne kër gi nga xam ni fii nga dugg nii sama photo doom bale ma la woon sànq te mu gaañu génn àdduna à l'âge de 37 ans donc euh, moom ci boppam rakkam moom la Sonko may benn xaritam ma xam xaritam boobu ñu nekk euh, ay nit yoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla ñu jub lañu ñu ànd ak euh, diine ànd ak Pastef ak dogute ci lépp loo xam ni relation de entre nit ak nit romb nañ sax ñoom ñaar ci ay xarite rek nii c'est-à-dire li ma bëgg a wax foofu mooy jikko ju kooko yore moo dab Ousmane Sonko parce que dañu yàgg ñoom ñaar di ànd te Ousmane Sonko lu mu considéré nit ki considéré bu amul diine rek moom ku ñàkk diine bokkul ak yow jëmukaay donc loolu ma ràññee ko ci moom mu saf ma neex ma te it man loolu dama ko fonk ndax euh, sénégalais boobu ko buggee jot rek da ko laal ci wàllu diineem waaw donc euh, loolu daal moo tax euh, sama wëllëre rek moom ma di ko doxal ci kóllëre gi nga xam ni seq nañ ko waaw ñëwoon naa fi seet si la euh, yaakaar naa ni waxtaanoon nañ ci li nga xamante ni moom mooy ñel visite bi mu la fi seet si woon nga dëggal tamit sa bopp na ko ni yow pro Sonko nga ñëwoon naa fi nga ne mu Ousmane Sonko dina bokk ci li nga xam ne mooy élection yi euh, te bu ñu xoolee élection yi je pense que dans quatre mois la di des bareetul gis nañ mbiri Ousmane Sonko jamono ji doy na waar ginnaaw juge bi mu ko joxee sax dëgg pour ñu réintégrer ko ci liste électorale yi jox ko ay fiche de parrainage am DGE nangu ko ñu bëri ne euh, maanaam euh, état bu Sénégal lu ñu bëgg du lenn rek lu du Ousmane Sonko ba ñu bokk ci élection présidentielle yi opposition bi sax ñu ngi koy wax yow loolu tey ban jàngal nga ci am ban lecture géopolitique nga ci am xam nga Binta la waxoon dinaa ko misaal ci benn fànn teggeekuwuma ci benn yoon bu fekkee ni vaar nga wut nañ dem ba ci kanam di ngeen gën a comprendre jox naa leen fi misaal ne leen au début da doon wicci wiccal bu doon taw da doon wicci wiccal wisigul bay sóob waaw ay étape la ndax fiñ ko jëmee foofu moo koy yóbbu ci fa nga xam ni nii askan wi yëpp booy seet ñoom moom la ñu bëgg nekk président de la république. président à quatre des élections ay ay ay fiche de parrainage am sax joxaguñ ko ko diggante moom mambay ñaa pareegu ci yooyu yëpp nekk ci kawam. xam nga bu fekkee ni ñoo ngi waxal dëgg rek jarul sax ma ma ci ma ci am lu may reculer yooyu ndax benn wax ñoom moom lañ doon wax ne leen A ba Z moom mooy seen. Euh, leader seen candidat yooyu man dama ni Z ba A man dama gëm li may wax ne loolu la ah fi ma ko teg fi ma ko teg bari na xam nga lu yàlla sampal boppam garab gu yàlla saxan nga koy jéem a dindi te yàlla àndu ci lu nekk di ko jéem te du sotti dama ko bañ ba misaal ko ci réew mu yorul boppam xanaa nekk ci njaam ci dang-dang day dëkk te ay aajoom du faju réew mu yorul boppam du mën a def la mu bëgg te massa moom ci xéewal réew mu yorul boppam kenn du ko yëgal ndey te kenn du séddale ba xalaat ko kon donc loolooy càggante gu làmboo toroxte wolof la dégg na bàyyi. ah yëgoon Ousmane Sonko mu ngi daal waaye mais dafay wér pëlëng Ousmane bu ñu déggee sax ni qu'il est dans le coma mais c'est c'est logique. nit bu la joxee boppam nga jox ko sa bopp boo dee gor la mu nekk malgré que sëñ bu mag bi waxoon na j'espère que comprendre na ko parce que mësu naa dégg mu daan ne waa Pastef ne ko yéen dama leen yore bor ndax dafa mësoon yóbbante ci moom ñu dégg ndigalam ne ko yow kay say wax jarul sax di laamisoo ak yooyu jëfee la tudd kon donc loolu sëñ bi comprendre na ko ci te mi ngi koy ñaanal dew ma fa dikkuma fi mais wóor na ma ni mi ngi koy ñaanal daf ma leer parce que ku gore la sëñ la boo xam ne nii bu xëyee suba ba ngoon ci te nit ñi lay nekk képp ku dogu ci diini lislaam képp ko waxuma ay péeteeg ay euh, fii murit yi fii euh, kii yi fi moom ñëpp lay kii ñëpp la boote ñëpp la njaboote ku ko xam xam jikkoom xam ni kër yi yëpp mën na fa dëgg te fu mu ci dem ñu dalal ko ganal ko gan gu rëy nag waaw donc moom tàndarma jooju mu joxe ak ma bëggoon yor tàndarma jooju ba di ko yóbbul soog ko kon du yegg sax. mais gis tàndarma ba mu ko joxee. jël na ko ba dakkaloon li nga xam ne mooy grève de la faim bi mais gis nañ ni euh, plongé waat na ci li nga xam ne moom mooy grève de la faim ba mu jural ko malaise ba mu nekk ci état bu grave bi nga ni ñu ngi dégg à travers les mu ngi ci est-ce que tamit c'est le moment. Ousmane Sonko kenn d'accordul ci mu dugaat ci grève de la faim parce que daf koy wàññi moom parce que boo waree nekk le cinquième président de la république soxla nga sa doole. waaye yow te nga ma muñal bintu rasool ah yow tem nag yow yow ah, da xam lu ñu xamul. mais yow yow xam lu xamul way gis nga man day saf-saf du mu ci reculer benn yoon il sera président de la république en ce moment nga ñëw vaar ma bu fekkee ni du dëgg. ñi nga xamante ñu ngi naan euh, euh, ñu nga xam ñoom ñooy waa ex-Pastef dañuy nax seen bopp. parce que élection lu ci des bareetul ngeen jàpp fi ngeen jàpp ba tey nanga wala ut plan B te ku ne Ousmane Sonko di nga xamante ni mu ne ci kawam bari na luur na luur boo xamante ni kenn xamul lan la. dafa la wax loo xam ne xëy na daf la jaaxal mais li ma la wax dama ci doon dellu deux yota ki war a pare kay te xam ni moom ba mukk dootu ko nekk jébbal na boppam neen. aw yow xam nga mani fii nga ne yore sa micro ku nekk nga tàllal ko ko déedéet yow nekk di nga ko tàllal sa micro man ni li ma la wax c'est ki fabu ba tàggatoo te kër yëpp fu mu mu ngi tàggatoo ko kay ngay war a wax ni dootu ko ne. le ah oh, bon yaa ko tudd. moom pare am na koo xamante ni teg na ko ni moom bu demee tam Amadou baax moom mooy candidat bu benn te gis nañ fan yi ñoom di commencé sax di di di di di di wër dëkk bi. xam nga man nekkoon naa parcelle xam parcelle bu baax j'étais le directeur de la rajo Jàppo FM bu Parcelles Assainies pendant trois ans avant may dellu Paris la mu fa nekkee xam naa ko. ndegam foofu la mënut a gañe boobu doon saal sax chaise mu fa am ak fauteuil yeeg yooyu kenn du du du ko ci woteel dañ dem ba ci kanam lu tëwut a xam dafa yàggut lépp non du question compétence du question compétence il est vachement compétent c'est une question politique Amadou n'est politique waaw parce que politique dafa am yu muy laaj ci am na moom am na ay valeurs yoo xam ne du ko nangu mukk tukulóor la day bañ bëggul sax dugg si yooyu ñëpp xamee nañ ko parcelle le sérieux kila mais c'est pas un fin politicien alors que Sénégal bu jafe bi soo nekkul un fin politicien gëwuma da du fi mën a yàgg euh, li ñu ko yenn nii dañ koy diisal rek mais buñ ko laaj laajoon xolam ak xelam ak kii yëpp dégg naa waa këram ni ñoo ngi koy suuxa di ko toppatoo di ko ci jàppaleeg yooyu kii kooku j'ai entendu euh, une femme je crois que c'est sa femme d'ailleurs mais ci droit am la nekk loolu mu wax parce que boo amee jëkkër lu mu nekk danga nga ciy nekk maanaam da nga ciy taqrib mbaa nga niñ ci batt donc ñaar yooyu yëpp def na ko ci te la ñuy xaar ci jigéen juy sëy sa jëkkër lu mu nekkee rek danga ko war a jàppale mais nag dañu soxla dëggantaan ci politique pour mu doon c'est pas un politicien loolu ko mooy foofu parcelle ah, doon na gañe sax parcelle laajal Moussa si dana la ko wax laajal Mbaye Ndiaye dana la ko wax Amadou Ba n'est pas un fin politicien dañ koy sonal nii rek mais bëggu ci dara ba dara ba la jeex waaw mais xam nga lu la bett man la sax mënuma ko wax parce que samay propos la ma bëgg a wax dëggantaan moom ci boppam xam na ko moom ko gën a xam duñu doy na borom xel xam nga li politique laaj Amadou yorewu ko qu'on se dise la vérité c'est pas un fin politicien jikko yi nga xam ni politique moom la laaj amulu làmboowu ci benn muus geeg naxante beeg yooyu di jukkoom le fin politicien dafa am ruse bi muy àndal son mentor kooku c'est un terrible politicien ah mais voilà mais lui je ne le pense pas ku dégg ndigal la nag ndax boo ko sante dara da ci yow koŋ lu mu doon it nga fal ko ko danañ ci taxaw taxawaay ba ci war waxtaan wax dëgg ci la parce que mais liñ ko kii dañ ko sonal rek mais bon c'est pa ce fin politicien il peut réussir à tout mais sauf la politique c'est pas un type qui est mauvais. faaw nga nekk faaw nga nekk un grand nga nekk un grand politicien faaw nga saay-saay. <laughs> wax nga wax yëpp Amadou Saay saay. Amadou di koy bëgg rey njàng bi mu jàng dafa laaj dëggu il est comme Ousmane Sonko ci loolu ci dëggu bi Amadou loolu la nit ku mel noonu nag mënoo ko dugal ci kii du ko pousse di ko kii xanaa di ko soutenir yow li mu ñàkk nga mottali ko ko parce que xam nga ni muy demeeg yooyu mais naxante bi ak kii yooyu c'est pas amado c'est pas Amadou ñu bëri xam nañ li ma la wax APR boobu ñu nekk su gisee. Euh, mu am yëngu-yëngu bu méttee métti parce que ñoom xamal nañ ko seen bopp te il se pose même des questions est-ce qu'il va gagner les élections su fekkee ni moom yàlla na ko yàlla jàppale su fekkee ni nag du moom te gënul ci Sénégal ah yàlla na ko yàlla may leneen du gën li mu nekk ba sax euh, vraiment en toute sincérité li mu séntu ci àddinaam ci dundam yëpp yàlla defal ko ko parce que faut pas être méchant faut pas être aussi euh, mal euh, donc euh, moi c'est pas ba nga ba nga yëgaatee ni Ousmane Sonko defaat na grève de la fin yaakaaroon nga ni Ousmane ak ni nga ko xamee jullite bi euh, ci ci ci ci dëggu ci gëm boo xam ci am dignité ci am ambition ci réew mi yaakaaroon nga ni dina plonger waat ci li nga xam ne moom mooy grève de la faim bi. Euh, man su ma nekkoon conseiller danaa ko dindi ci grève de la faim je t'ai di tantôt ne la dañ ko soxla parce que man am naa yàqin ni qui sera le cinquième président de la République du Sénégal euh, li mu làmboo tuwarfakàll macha allah yàlla bu ko cat jiitu wax dëgg fa yàlla ku ko làmboo foog nga am yàqin ak yaakaar ci moom Parce que le Sénégal de demain est un Sénégal où il n'y a que la vérité qui puisse nous faire avancer te nit ñu mel noonu ñooy xaw a bëgg a jeex ci Sénégal dëgg ak jub feebar la ci Sénégal fii c'est la république des interprétations Donc, qui interprète mieux est porté comme une, euh, un messie et qui ne sait pas interpréter, donc euh, restera toujours au même niveau qu'il était. Lolo Monfinek. Donc, il y a beaucoup de gens qui crient gauche, droite, yo, yo, yo. Suis-moi, j'ai reçu tellement de gens ici dans ce modeste salon ñu toog waxtaan xam naa seen yéene ak seen pastef ak seen dogute ci bëgg réew mi mais ce ne sont pas de véritables politiciens c'est-à-dire bi nga xam ne yii la politique de politicien moom la war a am du kenn ci ñoom du kenn ci ñoom boobu ci gis ruse bi parce que dañuy ñëw ak dëggu ak jub bëgg a ay pexe yoo xam ne nii leer na ni par exemple ñëpp a bëgg Sénégal mënoo ko gën a bëgg que sa morom boo xam ne nii day wut ni yow mais qu'on se pose la question pourquoi ren ji en deux mille vingt quatre war a woote ji mu nekk boulet boo xam ne nii donc musul woon am parce que on n'a jamais eu benn vote boo xam ni président bi ci nga xam ni nii moo fi nekkoon mooy organiser sax pour ñu voter alors moom ci boppam dafay wut keneen ku koy remplacer mu tabb ko te man boobu sot d'accord ma ci parce que waroon def ay primaire primaire parce que c'est une coalition képp koo xam ni bokk nga ci coalition bi nga dem defi primaire dans ton secteur génn sa candidat ne mi ngi nii loolu moo gën a juste mais ñoom ñëpp ñu wékku ci moom mu tànnal leen je pas compris xamu nu ñu mënee sàggan surtout un parti bu mel ni PS nga xam ni moom dafa waroon demal boppam rek waaw yàgg bawul dara xam nga loolu yàggaay boobu moo la def nii nga mel tey parce que ñun ñëpp man mii di wax ñu dund nañ ci seen politique nañ ci dundee maanaam si système bi nga xam ne moom dañu tegoon ba léegi mooy wéy Sonko il par de système système bi dafa war a changer suñ demee ba Sénégal nga xam ne lii pour jënd ceeb sax par exemple euh, j'ai beaucoup approuvé le le fait que ñu amoon des difficultés dans l'énergie telles que le courant bi fi Ablaye Wade nekkee ñuy jal ci jay ci jay ci jay ci tey ñu tàkk ëllëg ñu fay fële gannaaw ëllëg duñu tàkk duñu am di ñu coow di wax di wax di wax ba bi Macky ñëwee changé ko alhamdulilah rabbil alamin on l'a tous applaudi mais après dañ ci dugal leneen wane beneen genre politique boo xam ne nii système boobu mu woote moo ko indil dooxi doona yëpp ba ba nit ñi non du moom Sonko moom Macky moo ko indil jafe-jafe yi nga xam ne nii nit ñi dañoo yàkkamti sax mu dem ak lépp lu mu am mu jël yóbbu. opposition bi tey naka nga ko gisee ñu bëri ñu ngi leen di joxoñ baaraamu tuuma parce que nee nañu combat bi dafa xaw a loo depuis Ousmane Sonko bi ñu ko tegee ak quatre mois des élections ñu ngi doon xaar peut-être ñoom ñu génn gën a dëggal seenu combat. pour génne Ousmane Sonko foofu mu nekk mais ku ci nekk ci ñoom yaa ngi ñuy gis euh, maanaam ku ci nekk yaa ngi utal sa bopp yaa ngi ci utum parrainage bi tey opposition boobu noonu tey ñëpp yaakaaroon ni amaana tey ñoom ñoo waroon taxaw fexe génne Ousmane Sonko euh, ci euh, foofu nga xamante ni foofu la nekk mais gis nañ ku ci nekk yaa ngi sa yoonu bopp tey nan gisee opposition bi. est-ce que opposition am na. ah man gisuma ko parce que nañu meroon wexaat nga xam ne dem ba nga xam ne xaw nañ yëngal nguur gi est-ce que gisati nga ko. parce que fab nañ ki nga xam moo doon yëngal ñu dugal ko ci kaso pour rek mu bañ bokk parce que xam nañ ni bu bokkee balay midi ñu annoncé ni wax ni ko yaay cinquième président ñoom ñëpp xam nañ xam nañ bu baax a baax kenn doo dooful fii sénégalais muus gi mu muus yëpp xam na li nga xam ni mooy njëriñam te bu bu day pour dem rek vote ji ca saa si fa saa sa lay amee yëf yi jeex d'autres niveaux non non non non non pourquoi ñu ne selaw ñu ngi ko tëj ñu ne selaw et pourtant jiwu leen loolu tool boo xam ne nii moom moo ko béy à lui seul béyal ñëpp ku nekk seddu ci am li ñu am tey ñu yaakaaroon ni ànd boobu nga xam ne nii defoon nañ ko muy àndu Pastef ak dogute ak engagement bu wóor wóor wóor moom la ñuy dawal ci diggante mais bi biñ ko dugalee kaso rek yëf yi dafa ñu salaw ka ko doon wooyee doomu ndey sax faf moom gisatuñ ko déggatuñ ko ah yaa ko tudd man sama doomu ndey day wér ba nga xam ni loo nekk danaa ci nekk amoon na ay jamono loolu la doxaloon man ñëw na fii taxaw yëkkati naa ko ndax engagement am mu yëkkati sama photo may ko. parce que j'avais tellement cru li muy wax que ni du dog mukk parce que mosuma ko xam ci loolu. xam politique wala ñàkk am maturité ci politique Ousmane Sonko moo ko yóbbee li mu nekk yëpp parce que ku ne xam na ni politique dafa ànd ak ay coups bas. mais moom du borom coups en général sax booy ànd ak moom nga nekk di ko def coups bas il te répond pas danaan teg il t'oublie parce que c'est la meilleure manière. dégg nga de répondre à quelqu'un muy wax ci yow rek mel mel mel mel fu nekk mu toogee la fa nangam nangam yow nga toog silencieux noo ko tuddee léegi xam nga loowu la xaw ma waaw loowu na mooy sa lan sax maanaam sedd na ah kay ma ngoog moom day sareel boppam baraw glace Ousmane doo ko dégg muy dugg ci yey wax muy tontanteeg yow jamais au plus jamais loolu dafa taaru dafa rafet ñi ñi koy dëkkal fi mu dëkk dëkkul dañ ko ñàkk xam sur ce plan là qui a été comme Sonko Ousmane nga daj li mu daj yëpp depuis deux mille vingt et ba léegi ñu topp ci lii boole laak lu ne ndëgg sërëx yi fu nekk ñu jógee fa ay piège ay montage yoo xam ne nii inimaginable rien que pour nga bañ a bokk ci ci ci élection ñu door ko depuis 2011 ba léegi parce que xam nañ fi nga jëm ñoom dofuñu dina jàppul li ñu tiit kay bay wut ndëgg sërëxal yooyu yëpp mooy est-ce que bu ñëwee toog du dellu si wat ginnaaw du seet li nga xam ne nii jël nañ ko fi wala luubal nañ ko wala ay yooyu ñooy yëpp moo tiital seen affaire ba nga xam ne nii am na benn mag yoo xam ni ku ma woon la billaahi mais voilà dañee ci moom génn ci parce que man xaw ma ñaari jikko ci nit dem boole ji ko yàq digganteem ak Macky parce que Macky n'a jamais été comme ça et aussi il n'est pas comme ça suñ ko bàyyeeg idem rek jigéen dugg ci amul keneen kuy soxloo yooyu yooyu dafa bari lu ci déglu nopp bee fees ba nga xam ni des fois dinay bëgg a def lu baax sax mu tëkku ticc bon mais ku mel noonu nga bëgg a dund fii Sénégal surtout dans la république de l'interprétation du sotti quoi est-ce que di nga dem ba doon nit sax par rapport à tes agissements yooyu ni nga yëngoo sax dootul do da ngay jànnaxe moom looloo ko dab actuellement ndax fu mu wékku rek yaakaar ni fii baax nag yooyu et les gens sont en de le lâcher tout doux parce que xam ne nii di d'ici quelques mois il n'aura plus de pouvoir donc comme moom mooy dugg ci kër yi mi ngi leen di tàggoo euh, au bénéfice de celui qui l'a mis au devant de la scène muy du Ba nit ñi foofu bu ne woon bërët génn wacc fi Amadou Ba tooxi doona am foofu la nag la ñëpp di feeñe te tey loolu yéexatu xaaral tuuti rek di nga gis les visage vont se découvrir waaw waaw ñi nga xam ni ñoo ngi ne tekk ak ñi nga xam ñoo ngi yëngu ñi nga xam ni ñoo ngi koy waaj ñi moom ni muy wëree di tàggoo ñu ñëpp ku ci nekk dëkk bi dana doon dana dëkk da nekk dëkk bu salfaañoo tonton mënu ñoo ñëw te duñ la laaj aussi li nga xamante ni actualité la boobaak léegi euh, ñu ngi koy euh, ñu ngi koy véhiculer à travers les réseaux sociaux muy euh, Ahmed Aïdara Ahmed dara gis nañ keroog ki nga xamante ni moom mooy Moustapha Dramé yàllaay kase def ay accusation yu doy waar teg ko ci ndoddam li mu wax dafa leer nee na ay Aïdara moom moo nekk toobu yeewu askan bi maanaam parti au pouvoir bu nu bëggee lu leen leex ci foofu ci moom la ñuy jaar ba ci Ousmane Sonko sax nag moom baaxee connaissant ay dara tey yaakaar nga ni lii nga xamante ni accusé nañ ko ko euh, méngoo naag moom. mën naa am sañ-sañ wax leen Ahmed Aidara deret la ci Ousmane Sonko loolu yëpp euh, pour tudd ci yow ne xam moo moo wax lan ne am na ci ay preuve man góomu ko de. je suis formel Ahmed su ko xam jikkoom je ne l'ai pas pratiqué mais dama ko xam de loin et même de près si j'ose dire parce qu'on a eu wallahi jarul a li mu lay wax nii lu leer peng la yàlla yàllaay kese ak yàllaay noonoog nangam nangam amu ci nañu wax dëgg te jàpp loolu laa wax nee naan la réew mi dafa feebar ci dëgg ak jub ko xam ay Aïdara dëggantaan ak ni mu mel ak Sonko c'est son grand frère du ko def yooyu mukk Ahmed du ko jaay ñu bari dañ ko mere woon ci app kii nu mu tuddi Pastef ndax lan il était beaucoup plus proche quand tu es proche de quelqu'un lu jóg rek ñu teg ko sa kaw te Ahmed n'a jamais été comme ça Ahmed dem na ba sacrifier boppam tu sais que Ahmed daan dox ñu koy surveiller te amul ndëggu sërëf ñu ko tegaloon ndax Sonko loolu lu Sonko xam ba jàpp Ameth nag parce que moom xam na kan mooy Ameth xam na li mu bokk ak kon donc yu mel noonu ngir yàlla yonent ba ñu ban di jaxase nit ñi quoi heureusement que Ameth du benn nopp il est réfléchi voilà loolu lay tontu xaw ma yàlla yu kese xaw ma waaw yeneen nit yi wax nag je dis que ni fii c'est la république de l'interprétation chacun est libre de voir la chose comme il l'entend wala il préfère l'entendre à sa façon donc euh, loolu baaxul daal nit ki nañ ko waxal jàmm ak salaam mani du gëw gëwuma ko sax loolu ba di kii ku mel ne Ahmed Aïdara jikko xaw ma jikko boobu de ci moom te lii mën naa ko wat te dégg nga ndodd bi billahi wallahi talahi Ahmed ne ferait jamais ça c'est clair alors